bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax ci di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaare yi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko gudd fan gu ànd ak wér ba lim yéene liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasul mu defe ko ni ko soobe di nuyu Cheikh Ahmadul Muxtaar moom Cheikh Mouhamadul Moustapha ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gépp Euh, def benn déclaration bu gàtt rek jëme ko ci xew-xew bi nga xam ni amoon na démb ci dimanche ji fii ci Daaru Xudoos ci kër Cheikh Mahamadul Fadel Mbakke moom Cheikh Mahamadul mustafa gi nga xam ni doom jii di taawam di Cheikh Mahamadul Moustapha moo ko fi nekkal amoon yitte ak yéene ak yi motti taxawaay bi nga xam ne moom la ko way juróom bàyyee waaye am yéen taxaw mbooleem njaboot gi fi wéy mu bàyyi muy ay ñuy ay rakkam mu woote woon woote bu am solo démb fii ci Daaru Xuddoos dajale woon bokk yi bokki taalibe yi bokki jullit yi ak njaboot gi nga xam ne ñoom lok yàlla booleel waaye wëllëre yi ak seex yi nga xam te bi nii ñëpp ay wëllëreem lañ mu waxoon ci làmmiñam itam ni yéeneem ak engagement am ak taxawaayam mooy tàmbali na ko ca du ca deltu gannaaw loola itam mooy dëgg ca moom wax na ni mi ngi koy gën a fedd li saa sone ne wax na ni daal njeeb soob na yàlla yitteem ak yéeneem mooy jot ci kër gi ndax leer na naññi ni moo ko moom moom gu leer naññi loolu itam tax na taalibe yi ak bokki taalibe fenn fu ci nekk ñu ngi woote ak doon laaj tey jii fu procédure bi toll nan lañ war a xëyee tey ba léegi nitam nit ñi di woote waat di laaj fu procédure bi toll ak nan lañ war a fan lañ war a taxawee ngir yéene juñ am ci moom ak yéene juñ am ci kër gi moo taxoon ñu noonu nañu ñëw rek def benn déclaration ngir wan wax jullit yi ni leen Serigne Moustapha nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di jaajëfal ci taxawaay yi nee na waaye dafa fekk ni moom ab taalube la buy dundal ak taalubeem ba tax na bi coow yu amee ay kilifaam yëpp kenn ku ci nekk woo na ko ñenn ñi wax nañoo moom ca bañ ko woo ñenn ñi woo nañ ko ngir mu wusi leen wuy jina leen ba wax na ñoom xamal nañ ko ni ko na dalandi danañ ko lijjanti waaye nag lu mu mën a doon ci ak dal lañ koy def ba tax na moo taxoon mu ni daana mi ngi jaajëfal bokk yi wax leen ni leen nañu maase ñoom ñëpp déglu ndax kilifa yi woote nañ tàmbali nañ aw waxtaan démb ngir ñu xool nan la ñu mën a trouver solution bi ba lépp loo xamante bii nii amoon nañ ci mébét wala ñu yéene woon ko mu mën a sotti ci noonu la ñuy jégloo soxna maam xari joob ñu ko jéglu baax ndax démb bi ñuy yëkkati kaddu yi euh, dafa am baat bu ñu tudd turam ci wax ni woona sëriñ Moustapha ba këram loolu njuumte la noo ko ko bu baax euh, Serigne Moustapha ci boppam moom moo woo Cheikh Ndiaye moor di doom ci soxna maam xëri wax ko ni ko soxna si ci boppam sama wayjura sama yaaya sama lépp dama amoon yéene sax duma wax ak moom ci kër gi waaye dama bëggoon mu delloo ma ko sëriñ Cheikh Ndiaye Moor wax ca ak moom ni ko lii nga wax day yéeney soxna si la woon soxna si waxoon na ci ak man waxoon na ci ak man loola mooy la nga xam ni moom noo xewoon seen diggante ñoom ñaar mook sëñ Moustapha bi ñuy wax nag euh, rafetaay bu loolu rafet ak yéene juñ am ci sëñ Moustapha ak bégguñ bég ci li ñu sëñ Moustapha nettali mooy sababu ñu tudd turu soxna maam xëri ba wax nañ ko waxee waaye tudd gi tur ci internet bi noo ko ko bu baax a baax ndax euh, buñ sañan duñ tooñ kenn wala duñ gaañ kenn waaye daal ñu leen di xamal ni bu loolu jàllee sëñ Moustapha nee na musta teggi tànkam musta delloo gannaaw ci lii mu mébét engagé ko fas ko yéenee amee ko ni mu ko bëggee ci kàttanu suñu borom dafa fekk ni kilifa yi ñoo ne ko nañ dal rek waxtaane ko waxtaan nag mën naa indi lone bu ñu sa jógee itam lépp lu ci tukkee dañ leen ko waxaat nu ngi lu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu